Merci de nous recevoir chez vous sur Wolf TV. C'est parti pour ce numéro de Cercle des Arts, ce rendez-vous artistique et culturel. Et aujourd'hui, je reçois donc un groupe qui n'est pas méconnu du euh, public sénégalais. Il s'agit euh, des frères Guissé, bien évidemment à Gibi, à Cher et à Alune. Bonsoir, Cher. Bonsoir. Bon, Gibi. Aline daa fër euh, daa fër. il s'est retrouvé au froid. <laughs> au froid ah mu ci sedd bi de daw na ci sedd bi maintenant il vit au Canada. depuis quelques années depuis waaw quelques années. donc ñu ne ko booy jéggal nañ la quoi. waaw booy jéggal naa leen. Ah, nee na tëgg daa métti quoi. <laughs> dafa métti <laughs> c'est ça. Voilà les frères Guissé, Gibi, Cher et Alune qui sont un groupe musical. Leur carrière officiellement commencée en 1995. Mmh. dans le monde, de Québec en 1997. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter dans votre parcours? C'est un groupe euh, mm. Mm. de faire presque le, pas le tour mais toujours de retour euh, se baser à, à Dakar. Mhm. Donc au début, effectivement, ce qu'on s'était dit, on avait envie de faire une musique mhm. qui serait une musique qui nous euh, donnerait les possibilités de voyager partout, de jouer et rencontrer d'autres horizons, mhm. d'autres artistes, d'autres genres de musique. Et voilà, c'est ce qu'on a pu faire avec cette musique euh, acoustique que nous faisons. Mhm. tout à fait euh, Djibi. il fallait trouver d' abord trouver une musique exportable. Ah oui. Euh, alors on s'est dit que à partir de l'écoute euh, que nous avions eue parce que très tôt quand même il faut dire que les années 70 par exemple mm -hmm. euh, la musique africaine était autrement mhm. aujourd'hui la musique des années 80 c'est autrement la musique vous voyez qu'on voit Et euh, nous, euh, on a eu la chance de connaître beaucoup de musiciens qui s'exprimaient à partir de leurs instruments, vraiment, qui mmh. s'exprimaient. Mmh. Et la musique africaine, c'était ça, c'était l'expression des instruments avec une certaine originalité. Mmh. Quand un Africain joue, on sent que c'est de l'Afrique. C'était ça, parce que c'est ça l'objectif. Mhm. Chaque, dans chaque partie du monde, la personne ou bien l'artiste qui s'exprime doit s'exprimer avec son identité. Et là, nous avons choisi, en tant que natif de Dakar, mm -hmm. Alpolar, origine du Fouta, nous avons mis l'accent donc sur la musique polar mhm. et aussi cette musique, euh, je dirais essentiellement Wolof de Dakar, mhm. vous voyez, avec des ramifications. Euh, Serer, etc., Mandinka. Mhm. Pour la preuve, le clip qui vient de passer, c'est un instrument manding. Nous avons euh, voulu puiser de l'original. de de l'authenticité africaine sénégalaise et polaire. ce qui nous a permis aussi de oui. beaucoup de voyager. c'est ce qui a votre particularité et votre originalité. Il a un fameux Fama. Ah. Fama. C'est tout le monde euh, qui a marqué presque tous les. Oui, c'était la, la première cassette, le première cassette. Euh, <coughs> en 95 ça fait maintenant 28 ans. ans Fama à ans <laughs> si on peut revenir sur ce morceau Fama. bi dara doonu lay dara amul lu mu gisul amul lu mu dajul.

kon aye waaw waaw afaama faama dem na kon faama mooy ki nga xam ne te fa muñ te yaa nangoo uuf njabootam faama mooy ki nga xam ne dafa muñ te yaa nangoo uuf njabootam ku ñëw fekk muy baax dem fekk luy baax dem fi fekk luy baax dem hey baaxoon baax. waa ñu yemale ko fii quoi ah <laughs> Le, votre premier tube femme hein, mm -hmm. euh, qui a beaucoup marqué hein, euh, les, les Sénégalais. Mm -hmm. Et euh, après euh, Fama, il y a aussi d'autres tubes. Hein, il y a eu euh, l'album de Siré. Siré, oui, Siré, 98. Mm -hmm. Aussi, qui a, qui a fait son, son parcours. Oui. Parce que tout simplement, mhm. ici au Sénégal, voilà, il y a un problème, c'est en Afrique, au Sénégal, mm -hmm. les parents qui décident à la place de leurs enfants Tout à en matière de mariage, mariage forcé, mm -hmm. mariage forcé ou mm -hmm. même euh, euh, barré, on va dire, parce que souvent c'est des questions de caste. Ça, on l'a dit, on l'a répété, on l'a revu. On va continuer mhm. d'en parler parce que ça continue de, de, se faire ici dans le pays. Mhm. Et nous, nous faisons tout simplement mhm. parler à la place de ces gens qui vivent ça et qui n'ont pas ou ou les possibilités de s'exprimer. Tout à fait. Nous, nous avons la chance mhm. de parler, chanter et ça ou euh, les autres discours et euh, prestations ne partent pas. Mhm. On le fait on chante pour parler à la place de ces gens qui vivent ces situations. Mhm. loolu moo indi siré. kër boo dugg gis siré. gis sa siré waaw c'est pourquoi ça va droit au cœur c'est pourquoi la chanson de Frère Guissé va droit au cœur. ça va droit au cœur muy sujet actualité yoo xamante ne da ngeen koy développer à chaque fois c'est sensationnel ci seen tube yëpp presque. waaw on essaie de toucher la sensibilité des gens. Mm-hmm. c'est-à-dire ce que vivent directement le Sénégalais. Mm-hmm. parce que nit du boo koy woyal woyal ko li mu ma soxla. Mm-hmm. ñun quand on crée li ñu créé moom mootuñ ko su xasee bi génn jeex alors ku nekk ak sa expression euh, euh, ce qui ni nga koy ni nga koy gisee. Mhm. alors toujours day wute. alors sénégalais première chose mooy le sénégalais est très sensible. Mhm. ba léegi boo gars yi bu ñu seetaan filmé un dañuy yooy. alors trouver parce que la musique qu'on fait engagement la. Mhm. on est on essaie d'orienter nos nos populations. participer à l'éveil de l'intelligence. tu vois du sénégalais. pour que euh, formater un sénégalais. parce que woy mënul nekk seulement rek parce que baat neex na parce que mbalax bi dem na non il faut mu am lu mu apporteel le pays la population raison pour la laquelle lépp luy Séné euh, frère Guissé di bind mhm. sa à dire que daf koy teg ci benn thème boo xam ne quand même bi na touche sénégalais mhm. ci sentiment bi woy bi sentiment bi lu muy génne ak ci tex bi mhm. parce que am na woy bi am na tex bi maintenant moo tax nag seen frère Guissé lu mu génnee rek day naan taf quand même dina yegg si xolu nit ñi quand parce que ñun ñu gëm mooy musique dafay am ndeysaan muy àgg si biir xol yi moo tax loolu ba tey mën nañ ko tey ak li nga xamante ne moom mooy Palestine mhm. waaye ngeen ko lu yàgg waaye tey mu ko ak actualité ba tey gis nañ li fa am ci jamono yi Palestine li fa am yéeme na mhm. te yàgg na fa dañuy yàgg di ko jooy mu ngi am mais bés dina ñëw dëgg feeñ ba jàmm am donc ñu li ñu gën a touché euh, ci si way bi. mooy dañ ko woyoon euh, effectivement je pense boy euh, album bu ndey bi la woon ah. na génn waaw ay 2000. ay 2000 2001 xaw ma. 98 2000 xam ah ndey 2000. 2000. 2000 2000 waaw. mais ndeysaan dem si yàlla si. Sidi Lamine waaw Sidi Lamine. Sidi Lamine yes. morceau bi daf ko bëggoon daf ko neexoon. Mm. ba mu contacter ñu waxtaan si ak ñun créer benn événement. à l'époque vous étiez à Sacré-Cœur. Sacré-Cœur ah ñu def fa benn podium événement bu rëy. vraiment ñu ñëw woy foofu morceau bi dafa kii woon parce que li ci nekkoon la. Mhm. effectivement dafa bëri. ay ñoo xam ne Sénégal xam nga amoon na benn groupe boo xam ne des gens qui œuvrent autour de la paix mm-hmm. euh, en Palestine tu benn groupe euh, Intifada euh, mm-hmm. amoon na fi quoi des gens vraiment qui soutenaient moralement le peuple palestinien mm-hmm. donc moom ci la nekkoon ñun ñii amoon ci Palestine Palestine il était très donc bi mu déggee woy bi daf daf ko touché woon quoi ah. et donc mu nekk aussi suñu souvenir ak moom ñu koy ñaanal yàlla il m'appelait souvent ndax loolu parce que mm-hmm. woy bi daf la touché tellement mm-hmm. moom loolu moo tax et puis daf la doon teg ci rajo nag chaque matin mm-hmm. tu entends waaw parce que c'était euh, sa forme de moom comme parce que ñëpp xam nañu euh, nu mu engagé woon ci ci ci côté boobu waaw cause palestinienne te gis nga tey way bi li muy wax ak li xew tey c'est vingt cinq ans ah. donc pour dire que rek toujours suñuy thème dafay nekk ci loo xam ne dafay jëriñ waaw moo tax sax ñu bëgg am aperçu ci way boobu ci ñi nga xamante kii ñu ko. ci ah. Paris xam naa gën ngeen. gë gën nañ ko joué nag. <laughs> gën ngeen joué jox ma Cheikh jox ma premier accord. <laughs> ba euh, demoon ma xam je pense que yow yaa doon def euh, intro benn euh, soow ambulance. waaw ah, ça fait ambulance bi ça faisait comme ça. <laughs> xeex mu deñ loo xeex mu deñ Yasser Arafat basi na ñëw nga mel ni Mandela jamono yooyu loo muñ mu jeex lépp xeex mu deñ lépp la xeex mu dañ gune yi Gaza basi nañu ngeen mel ni waa Soweto da da da di da da da da da da amoon na fi nit ñi xeex mu deñ man ni apartheid amoon na fi nit ñi xeex mu deñ xoolal miiru Berlin taxawoon na fi di xajale ñu xeex mu deñ kon Palestine xoolal Palestine am naa ci yow yaakaar xoolal xare mu am ma ne mu am. gëm yàlla gi dootu fa wóor daal xare fu mu am xoolal xare fu dootu fa leer daal xare mu am ma ne mu diis ko lool xare xoolal xare daal war na ñoo mën macha allah. parce que fu mu nekk nii. Uh-huh. liñ doon njàmbat ay at i at moo fi nekk ba tey. Uh-huh. alors la question bi nit ñi di posé wu mooy adduna bi naka la demee. Oh. est-ce que droit bi ñu wax est-ce que am na. ce que am na est am na jar na laaj. waaw ah, droit bi ñu wax est-ce que am na. ci ay xeer. waaw. la yaakaar ngir moom seen réew. xeetum xeex bu ñuy tuddee intifada dañuy jóg seeni xeer jàkkaarloog ñi nga xam ne seen fetal la ñoo di sox di dóor ay bakkan di tuuru seen yaay yi jooy bor seeni doom gàddu seeni loxo du yuuxu naan ay yàlla ñun fu ñu jëm ak ñi sigil nga nit ku ñuul xamal nga ko yoon war a jaar ah, waaw may nga ñëw wax ak moom li ñu a wax ak moom man ne la mënoo ñaaw. Ah, waaw kooku nag mooy papa Nelson Mandela. Ah. Nelson Mandela xeexam bi xeexul lu ko waa réewam mais ko xeex pour Afrique. Mm-hmm. ba muy dem. Mm-hmm. lenn kese metti woon mooy ko chef d' état africain comprendre luñ message boobu mm-hmm. ah, euh, dem <laughs> sigil nga ñëw sigil nga ñëw xamal nga lu bare bari wan nga muñ lu muy jëriñ may ñu fit wan ñu lu muy jëriñ yow mi le mënoo am naa ci yow yaakaar Palestine am naa ci yow yaakaar Palestine am naa ci yow yaakaar Palestine am naa ci yow yaakaar nii la doon jeexee après gars yi yóbbu après <laughs> gars yi yóbbu muy tubb yàgg ngeen koy macha allah tey la gën a am euh, solo li nga xamante ne mooy li ngeen wax di revenir seen sujet yi thèmes yi ngeen xamante ne moom ngeen di aborder ci musique te loolu am solo la mhm. te fii nga koy xamee à chaque fois bu revenir day mel ni lu beesaat te moom la ñu gis ci Palestine bi ngeen euh, composé léegi waaw mhm. xam nga loolu mooy njëriñu woy en en réalité loolu mooy njëriñu woy mhm. euh, participer ki sa askan ci sa réew nu muy doxee ci sa développement dëkk ci ki ki yeete ci euh, ci sa population parce que loolu boo ko amee c'est-à-dire que sa mission réussir nga ko mais ce mooy que artistes yi seeni engagement dafay wute waaw parce que ñun bañ nekkee xale di woy ñun loolu moo nekkoon suñu vocation te loolu lañ ñu formé woon alors euh, mu nekk loo xam ne euh, daf lay topp doo musique kese pour musique quoi dafa mel ni le cas de El Hadj Ndiaye la même chose. Mhm. El Hadj mi actuellement qui est malade euh, on pense à lui. Mhm. et di ko ñaan rétablissement. alors euh, ce qu'il y mooy que il faut que nit ñi comprendre loolu. loolu bu ko artistes yi comprendre. Mhm. parents yi dinañ ko accepter. tu vois parce que koo gis mu bëgg a doon musique euh, musicien au départ parents dañuy dañuy bañ pourquoi. parce que booy xool musicien bi. et quand il joue des fois il se fait dafa mel ni il se fait plaisir tu vois mm-hmm. am na lu muy génne ci moom mais le fait mais or en réalité il fait plaisir à l'autre mm-hmm. mais quand il fait plaisir à l'autre dañuy yaakaar ne yow sa métier bi foo la mm-hmm. alors du foo parce que nit ki yaa koy orienté c'est pas un métier physique métier intellectuel la alors nit ñi dañuy xool yaakaar ne yow da foo alors du foo c'est un travail parce que musique dafay faj ñi feebar ñun on nous a amené chez les waaw musique thérapeutique ñun yóbbu nañ ci ay malade yu bari ah mm-hmm. waaw surtout à l'extérieur yóbbu nañ ci ay malade yu bëri waaw mm, wala ci ay màggat yu am ay quatre-vingt-dix ans quatre-vingt-quatorze ans ñu leen nga ah, xam ne ah, ay Italie ay affaire yi en France ay kii nga xam ne ay yoo xam ne am malade wala waaw ñëw yóbbu ay mm-hmm. centre waaw ci ay centre di leen jouer ñuy jouer xale yi di ñëw toute une journée di passer ay waaw te tu pour ça Mm. parce que ñoom xam nañu valeur boobu. waaw ñoom xam nañu valeur waaw c'est ça le problème. <laughs> fii la loxoy daje. waaw fii moom moom <laughs> dañ ma baal dese na ñoo xam daal bu baax mhm. tu vois en fait c'est ça musique acoustique bi. waaw surtout acoustique bi lu muy tey noonu. Mhm. parce que ñun ba ñuy toogee surtout expérience Italie bi ça m'a beaucoup marqué parce que benn famille moo ñu déplacé. Mhm. seen yaay dafa màgget màgget màgget màgget am ay plus de quatre-vingt-dix ans. gars yi seetaan ñun ne ñu dañoo bëgg ngeen ñëw xam nga. parce que du woon xaalis bi le fait que ñu wax ñun suñu yaay dañu bëgg mhm. ñu ne nañ dem mhm. mais bañ ñëwee fekk nag ñoom préparé nañ sax mère bi mhm. préparé wu gis sekk toppatoo mag dafa baax ah c'est c'est hyper important man affaire bi mënul tëj ci sa mbopp bi quoi toppatoo mag xam nga loolu euh, tubaab lu mu nakk ñàkk jot buy def loolu c'est hyper important ñu ñëw ñu présenté ñu mère mère baa ngi naan nañ set rafet ñu toog ñuy joué maire bi di déglu dafa déglu ba départ ba mm. ba ba nelaw noonu gars yi laalaat comme ne waaw parce que nit kaa ngi mu ngi euh, xam nga ni mag la mm. dafa am nooy joué mm. dafa am nooy wooyee waaw waaw mais mu ngi noonu daal c'est mu def am na muy def mu départ waaw relax ak yeneen am na yoo xam ne xaax munoo ko wax waaw <laughs> am na yoo moom dafay am na muy kii nu muy def sûrement bien que mbalax bee ngi fee tout ça. mais ah. bi c'est c'est particulier yi nga xamante ne moom la. voilà loolu mooy rôle am mbalax bi ambiance la c'est bien. ambiance la foo dem am na musique d'ambiance. loolu moo nekkoon euh, ay jamono. waaw ah. particularité ah. mooy que. Euh, ñu ngi bi ñuy génn en quatre et orchestre yi fi nekkoon yëpp mm-hmm. musique mbalax lañ doon def mm-hmm. et puis c'était des orchestres de douze treize neuf personnes ñun ñu ñëw nekk trois personnes et mm-hmm. puis jéem imposé naam am na ni ñu si jiitu. Mhm. ñoom Seydina Issa Wade dañ leen doon déglu. Cheikh au départ deux la ba ñu contacté Silar. waaw waaw on était Silar ba mu ñuy gis. au début Ibrahima Silla. Mhm. c' était le principal producteur. waaw ah, on était deux. waaw on était que dama nekk bi. waaw après la Aliou ñëw. Mhm. mu ne dama bëgg ngeen mbalax affaire bi ñu ne ko non. voilà voilà y' a beaucoup de mu wax te c' était le premier producteur moom rek moo fi nekkoon à l' international. mu ne dama bëgg ngeen habillé ko ngeen mbalax ñu ne ko non loolu franchement. lañ bëgg quoi. et donc on voyage euh, benn produ premier producteur bi loolu la toqal suñu noppi quoi mu ne en plus vous serez de, facile à déplacer. Mhm. Euh, facile à loger. <laughs> donc deux billets d'avion deux deux chambres d'hôtel <laughs> tournée bi jeex. la on a mis le le mhm. percussion. Mhm. et puis voilà après quelques années après. ñu tombé ci benn tubaab bu doon def benn flûte. Thomas Valley. Euh, muy def lu traditionnel bu Guinée. vraiment tubaab bi bu koy joué da ngay yaakaar ni ba buñ ko dëppee peñe da ngay yaakaar ni Guinée mooy joué. mooy comme gars yi di joué ci mbedd bi nii wóorul waalaana wóorul naa noonu la tubaab bi doon joué euh, ci jamono yooyu. moom it am na ay temps ñu intégré ko ci groupe bi. Mhm. defoon ak moom ay album. Mhm. d' ailleurs moom bi mu génnee ci groupe bi. Mhm. la créé groupe am tuddee ko Nakoji. am na benn rajo de la place boo xam ne journal télévisé bi. musique boobu la ñuy teg tous les jours. Mm-hmm. d'accord groupe euh, groupe Nakodji quoi. donc euh, voilà muy musique boo xam ne. Mm-hmm. on s'est vraiment battu pour imposer ko un tout petit peu. Mm-hmm. dire aux que y a cette musique ici aussi. et euh, def aussi de sorte que. du nekk pulaar kese. am na wolof ci biir. ñu ji bi déplacé wu dem ba ci mère Maaw Kuyaate. ñu koy nuyu de passage aussi di ko ñaanal jàmm ak salaam. déplacé wu dem ci moom. ñaari titres yu ñu bëggoon reprendre. tu vois mu dem ba ci moom mu jox ko parole yi et tout. mu ñëw ñu répété ko jox ko bu nekk vraiment une ouverture boo xam ne. Euh, ak séeréer si Cheikh. ak séeréer. séeréer si après ah. ak jaamu tukulóor yi <laughs> après lañ séeréer si après. boobu ñoom Fatou Diouf naa fi yow. <laughs> non loolu duñ ko nangu la <laughs> euh, comme ni nga wax rek ngeen di laal ci tukk euh, la laal ci xamante ne moom mooy ba ci mandeng yeeg tout ça ba ci musique alpulaar yi boobu ba léegi ngi dafa wolof mais benn tukki boo xamante laal ngeen ci alpulaar yi. Ah. may leen ko rek noonu te séeréer yi nga doon <laughs> fatimata sal salminama aha saltalo sall suudu lamin jeg cheikh ɗo wiyama ko alhaji baba mal wallahi a salminama a juurama ne a ñaganama allah jaam alhamdulillah fetelajino waadi maadi fof darima o fete laajina waadi maadi fof narima umola tomardi madini yanke nani pil pasi futa fotili fete laaji ngayni jamare be kawri japere konkoyani sambalami Allah wadiya Allah wadiya Allah samba dogata Allah wadiya Allah wadiya Allah wadiya samba dogata jani bil basi futa famtili petala jingai mi jamare be kaunge japere بما بمعالي سما دوغتا ايو سما دوغتا سما كيلا جيجي سما دوغتا سما سوسي وامي ولاني دوغتا aye aa jàmm mel wala so so so ca ca ca ey yo Mansour Seck wallahi ayo ayo hayya jamma belɗo wala samba gilajo jigi samba dogata samba gilajo jigi samba samba o firti laamu samba konko samba dogata konko bubu musa samba dogata aliye jamma belɗo wala morceau. ah tey Fatou Diouf eh. <laughs> moo <laughs> ngeen allah. vraiment. di continuer li nga xamante ne moom mooy seen i sorties mhm. à chaque fois aussi euh, ñu leen di solliciter ci yéen yi nga xamante ne ay soirée ak yu bari. yoo mhm. xamante ne yéen a ngi koy def ak yoo xamante ne yéen koy projeté aussi. waaw xam nga d'abord ah, ah, heureusement au Sénégal bien que c'est groupe boo xam ne. Euh, Euh, nombre bu rëyul. Mhm. mais ñu ngi performer quoi ñu ngi jouer. et li ñuy gën a mooy li nga xam ne c'est privé. privé d'accord waaw xam nga Covid bi dafa métti woon. mais mais Covid bi ñun. Covid bi suñu galère bariwu ci quoi. ah <laughs> parce que famille yi dañu doon déplacé ay famille ñu doon doon déplacé. Mhm. xam nga ko stress dafa metti ah, le fait nit ñi toog mënuñoo nu tu génn et cetera dafa am heure boo xam ne il faut nga dugg stress. Mhm. am na yoo xam ne boo ko deful. Mhm. nit ñi ñoo war a créer ay ambiance seen biir kër. nit ñi ñoo war a fecc di way gars yi di fecc ak ñoom eh, nga feccal sa jabar. nga feccal xale yi xam nga wayal leen en ah, Cheikh. bien sûr. <laughs> xam nga ñëppay taas Covid bi mais y a eu des familles de familles yoo xam ne dañ doon déplacé. dañ ñu doon déplacé nga xam ne dangay ñëw o est ñëw toog. joué ils sont quinze personnes ñu invité seen xarit on a beaucoup fait du privé maintenant en waaye privé à domicile waaye en dehors de ça ñun euh, suñu spécialité aussi mhm. c'est les c'est de gala c'est les dîners gala mhm. xam nga on joue pour les institutions ak yooyu parce que gars dañuy bëgg a toog mhm. di waxtaan di dégg musique ak yooyu lii lii a ministre euh, autrichien des affaires étrangères bu war a ñëw ñun ñoo war a animer affaire bi euh, à l'hôtel Pullman à l'hôtel Pullman waaw euh, parce que loolu mooy suñu spécialité quoi mooy les galas les privés quoi mm-hmm. loolu nag ça nous aide beaucoup mm-hmm. parce que loolu moo la mën a téye quoi parce que du musique populaire mm-hmm. musique populaire mooy dajale ay bul xam ay plus de mille personnes du musique populaire musique de l'électro musique bu dal la alors euh, euh, gars yi ñu ngi profité bu baax Mm-hmm. parce que ça c'est pour euh, nos amis yi nga xam ni. Mm-hmm. on a plein de gens yoo xam dañuy laaj booy fu ngeen di jouer fu ngeen di jouer. gëj naa leen seetaan bëgg naa leen gis. Mm-hmm. donc on semaine ci hôtel yi. entre le King Fat. King Fat le Terrou-Bi bi. waaw. démb ñu ngi woon Novotel démb tey tey ñii ñuy wax ak yow. incha allah bu ñu noppee vers euh, vingt am na cinéma bu bees bi. bu fii la à Mermoz cinéma dafa am benn rooftop. au premier. benn terrasse bu sympa bu fa on joue là-bas les jeudis. donc jeudi bi fa la ñuy nekk de vingt heures. yow mbaa duñ la woon naa la ñu dañuy publicité. Ah. Ah non comme kii ngeen ñu fii dañuy defal ay ay mosu ñu joué moo tax duñu wax dara. seen directeur bi seen mu tudd rek. <laughs> seen directeur bi mu tudd rek. <laughs> Cheikh Niass Cheikh voilà ah, Cheikh sama turandoom voilà. maa ngi lay ziar. kon Cheikh la tudd kon publicité waxal. <laughs> donc dans les hôtels. Mm. les les qui se brunch yi les dimanches ak yooyu. Mhm. heure heure yi ah. waaw 13h ñun heure yi xam nga gars yi guddi lay joué 13h matin la ñun ay 13h la ñuy joué. 13h 19h 19 ñun 22h. et parce que ah. ma xale bi foog ma sol. waaw ah, sóor club yi on night has come. And No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as as you stay, stand by. So, darling, darling feeling sad by me. Oh, sad by me. Oh, stand, stand by me. doo fekk fiñ xewle yaa fa jiitu kuy tuuru mën kuy saar moo ni baari moo ni yabaas moo ni baari macha allah <laughs> c'est super en <laughs> vraiment muy yi nga xamante ne def ngeen ko ci acapella mais tamit ngeen génne ay euh, li nga xamante ne mooy clip jamono yi ngeen def ñaari clip yu bees. Mhm. Euh, premier clip bi euh, donc moom la ñuy jéem a découvrir pour ñëwaat ci plateau bi. c'est vraiment jaam muy yi nga xamante ne def ngeen ko ci acapella tamit ngeen génne ay euh, li nga xamante ne mooy clip jamono yi ngeen def ñun ñi ko gën a mala mala kaak yeeg jine rabi géej euh, moom la ñuy jéem a ñun ñi ko gën a bëgg mala mala kaak yeeg jine jën gi ci géej ñun ñi ko gën soxla mala mala kaak yeeg jine sëdd yi ci géej yàlla yàlla nag may jaam si jamono ju jaxasoo ji jàmm la ñuy ñaan jàmm la ñuy ñaan jàmm la ñuy ñaan ñun ñi ko gën a yittewoo mala ñi ko gën a bëgg mala malaaka yeeg jinne rab yi ci géej gi ñun ñi ko gën a soxla mala malaaka yeeg jinne sëdd yi ci géej gi yàlla yàlla nag ñu may jàmm si jamono ji jaxasoo ji jàmm la ñuy jàmm la ñuy ñaan ñun ñi ko gën a yitewoo mala malaakaak yeeg jinne rab yi géej gi ñun ñi ko gën a bëgg mala malaakaak yeeg jinne rab yi ci géej gi ñun ñi ko gën a soxla mala malaakaak yeeg jinne sëb yi ci géej gi ñun ñi nga gën ba bëgg ndax nitu dëgg nga def suñu rasulaay te ñun ngay gën a rëbb keroog yow ma ñuy tipp suñu ñaq di ñu mëdd yàlla yàlla nag ñoo may jàmm si jamono ju jaxasoo ji jàmm la ñuy ñaan jàmm la ñuy ñaan jàmm la ñaan. joli morceau encore une fois jàmm la ñaan jàmm. jàmm la ñëpp di ñaan voilà ñu toog ci contexte yi bëgg a ñëw ci approché wu eh, élection ki mm-hmm. yeneen Sénégal jàmm rek lañ siy ñaan mm-hmm. mm, ngeen wax ko ak yi nga xam ne xew-xew am na feet yëpp saa su ne mm-hmm. muy li ñuy waxat seen message yu am solo yi ngeen di yi ngeen di def c'est important ouais. c'est important parce que jàmm rek moo neex ci ci réew parce que si la ñuy jàng di jàngi si jàmm si ñuy liggéey dem liggéey si jàmm ñuy dem wuti mbëggeel bi sax balaay gën a neex jàmm am ah, donc du coup boo gisee réew mi xaw yëngu tuuti Fatou mhm. saa waay kii la de mu ne mbëggeel bi sax. waaw jàmm ko lal la de. sentimental <laughs> sa frère. <laughs> Cheikh. mu ngi lay tooñ de Cheikh yow yi na mu mu wax ci affaire euh, mbëggeel nag. xaw ma tax mu la ciy tooñ <laughs> léegi nag loolu. boo gisee. Mm. te yow xam nga ni sa kàddu. Mm-hmm. donte ñaar nit nit wala nit nit sax. Mm. mën nañ ko dégg. Mm. mu jëriñ leen woyal. donc jouer sa partition. Mhm. boo xam ne di nga conscientiser quelques personnes. donc loolu mooy loolu mooy combat bi ko am na ay mooy paroles yoo xam ne dégg ngeen ngeen koy wax ci suuf noonu yooyu lan la woon. Euh, pour kii ko wala ñun ñi ko gën a yittewoo. jàmm waaw ñun doomu aadama yi. ñoo ko gën a yittewoo mala yeeg. malaaka yeeg. Mhm. jinne yeeg rab yi nekk ci géej gi. Mhm. ñu ñoo leen ko gën a yittewoo. ñoo leen ko gën te ci biir loolu. yàlla aussi ñun la gën a bëgg ndax nitu dëgg gi mu def suñu rasul la te ëllëg ñun lay gën a rëbb keroog yow mën bi ñuy tiit ba suñu ñàkk di ñu mëdd donc lim ñuy bëgg-bëgg yëpp ëllëg tamit ñun ñooy janoog moom tiit ba réer suñu biir ñàkk donc ci loolu yëpp dañuy boole di tàllal loxo borom bi pour mu may jàmm ci la ci xaj parce que xam nga am na ay événements yi fi am certes mhm. il faut le dire euh, bien que morceau bi yàgg na mais début morceau bi dañu def bruitage bruitage yi mooy événements yi amoon Sénégal nga dégg lacrymogène yi di naaw ak yooyu mhm. bon euh, liñ ci junj mooy que pourquoi ñu ne jàmm jàmm su amul ci réew moom dara mënul am mhm. néanmoins c'est-à-dire que riposte aussi day am ci réew parce que tout simplement combat am na mais combat dafa am nañu koy mënee il faut le parce que yow mhm. mënoo ñëw defar lii ba pare nga ñëw di ko yàq André riposte mhm. parce que foo ko yàq doo liggéey c'est ça mais nit ñi dañu war a riposter parce que une lutte mhm. euh, la liberté kenn du ko joxe kenn du ko maye dañ ko en dañ koy foqati mais quand même nit ñi bu ñu taxee di xeex nañu xeex nañu jàmbaarloo mais jàmbaarloo na intelligent bu ñu defar ñu ñuy yàq bu bis rombee ñeenti bis fii boñ fi lakkee dix bis mooy nit ñi suba du ñu dem fenn. Mhm. c'est-à-dire que nañu riposter. Mhm. y a toujours y a pas qu'un seul euh, moyen. Mhm. pour pour pour euh, pour pour, pour combattre. il a plusieurs moyens il faut trouver intelligemment le chemin qu'il faut. pour arriver à développer notre démocratie une démocratie dafay dem. parce que amul fenn. alors euh, c'est un combat de longue haleine mais maintenant il faut vraiment intelligemment quoi. ñun c'est ça. ñu dem xoolaat tamit régie li nga xamante ne mooy beneen clip famille Mawla Feta Mbinila Maya Mawla Feta Mbinila famille Mawla Feta Mbinila Maya Mawla Feta Mbinila Ah, baile, Franco Mane, Franco Mane, baile. halale fama ndungu wuri camko yari ndungu alaganyo camko yari ndungu rumi camko yari ndungu alaganyo camko yari nen gese men caale je men ndungu alaaka ñoo jam ko yari pew nen gese men caale je men ndungu alaaka ñoo jam ko yari ndungu uri ndungu uri ndungu rumi ndungu rumi ndungu uri jam ko yari ndungu alaaka ñoo jam ko yari dungururi jam ko dungu alaga nyo jam ko yari gese meni chale jemen dungu alaga nyo jam ko yari gese meni chale jemen dungu alaga nyo jam ko dungu uri dungu uri dungurumi dungurumi dungu uri Ndungurume. Ndungu maanaam nawet bi ndungu mooy nawet ci tukulóor. tukulóor mu ngi. uuri mooy mu ngi xeeñ. Ah. nawet baa ngi xeeñ. d'accord jàmm mu ngi ñëw. Mhm. nañu defar suñuy tool. Mhm. préparer suuf si. Mhm. ngir accueillir nawet bi ci jàmm ak teraanga. donc loolu mooy ndungu dañ ko dañ ko indiwaat semaine caale jëm ak suñuy mbaar waaw defaat waaw xam nga préparé si waaw defar suñuy mbaar xaar taw bi ngir bi ngir mbay mi waaw mbay gis nga tukulóor baa wax mbay mi mi mbay mi mbay mbay mbay lañu ngir mbay mi mm-hmm. que lenn moo mm-hmm. xam nga dañ ko indiwaat pour pourquoi pour rappel la mm-hmm. parce que agriculture bi moom mun a yore dëkk parce que nit munoo nekk ci réew moo xam ne lépp lu ñuy consommer bitim réew lay jógee loolu mooy loolu c'est un handicap. bien alors li ñu war a valoriser c'est l'agriculture nga xam ne mm-hmm. autosuffisance boobu ñuy wax. Mm-hmm. si ñun la loolu la ñu war a valoriser ba pare. jaarale ko ci consommer local waaw pour consommer local. Mm-hmm. ba pare ñu nga xam ne ñoom ñoo ciy liggéey. c'est hyper important protéger leen quoi protéger industrie yi nga xam ne agricole la. bien sûr protéger paysans yi pour que les Sénégalais mën a vraiment arriver à consommer li xam moom la ñu defar fii dooleel leen. c'est juste un rappel. bay dundee mhm. waaw bay dundee. bay dundee waaw. Mhm. solo yoo xamante ne def def ngeen ko euh, donc fii mën nañ ban seen ngeen ko jouer ci image yi. mais fii fan la leen rôle. ay Europe ay Europe moom da lay moom de. suñu musée bi la. musée dañ ciy gërëm ki ah dañ ciy gërëm. Euh, monsieur Bokoum monsieur waaw parce que dañu waroon tourner ci terre bi xam nga on voulait nit da da mettre en valeur sa dëkk. bien sûr da mettre en valeur sa dëkk. clip bi ñu ko waroon tourner. Mhm. Euh, euh, gaar bi esplanade bu mag bi gaar bu mag bi quoi. Mhm. mais information bi dafa jàllul woon ba ci gendarme yi. Mhm. xam nga il fallait mu jàll à temps ñu kale lépp indi bagage ba foofu. kii laa koy wax ñu ñëw taxaw gendarme yi ne non waa ji war a woo capitaine bi ngir xool ñu ñu nar a perte temps mais comme on a un frère qui est là musée c'est à ma woo jëkki jékki mam idée ma gars yi dañ doon dugal bagage yi si bi rek ma ne gars yi xaar leen ma woo bokkum mhm. franchement je l'ai mu ne ma kaay leen gaaw mhm. te boobu tout moo tax dañuy filmer bariwul et pourtant am nañ ci lii c'est pour spontanéité boobu disponibilité boobu dafa baax mhm. ci nit dafa baax aussi surtout pour le monde de l'art parce que ñun on vit d'improvisation waaw on vit ñëw bi fii sax improvisation la <laughs> parce que dañ ko déprogramme déprogramme waat waaw ñu ngi ko remercier di remercier personnel bi yëpp quoi di mhm. remercier personnel bi yëpp quoi vraiment mhm, waaw di remercier bu baax tamit vraiment. Ah. di remercier Cheikh euh, Djibi euh, di remercier Aline tamit. ñu koy def clin fa mu nekk. waaw ñu euh, bàyyi leen ak. kontaan li nga xamante ne moom ngeen ñuy defal. ki tàggatoo waaw pour tàggatoo. Mhm. ku ñëw par exemple. waaw le 24 décembre. waaw ah, ah, ah. ku baax la ku baax la ku baax la ku baax <laughs> waaw Cheikh Niass ku baax la waxal waxal ku baax la. barki baay ku baax mm-hmm. la. vendredi 24 décembre bi. Mm-hmm. Euh, non dimanche la 24 décembre. ah bon. dimanche la ñu koy joué Radisson bu Diamniadio. c'est-à-dire qu'on invite les familles. Mhm. dañuy déplacé wu gën Dakar tuuti. Mhm. léegi lépp lépp Dakar lay xewee. ñu nag ñu fàkk jubal jam na bi mm, donc le le le 24 ak le 31 yëpp. ñu ngi incha Radisson bu jam ñaaju. ku bëgg a déglu musique euh, traditionnelle euh, kii acoustique musique du monde. Uh-huh. ñu ngi lay invité foofu en famille. am na dîner am na lépp <laughs> on passe. la fête ensemble. ok mhm. yow di nga ñëw. waaw dinañ allah donc li lañ leen indiloon tey ci cercle des arts dañ leen di bàyyi ak ñi ak harmonie ak frère Guissé ba tey leen di jaajëfal di jaajëfal ci technique bi Bintu Fall euh, ci montage bi Ndiasse leen jox rendez-vous samedi bi di ñëw incha allah ñu bàyyi leen ak frère Guissé ngir terminer. kotaade may see Elimane Siré samba de mbaani mu waa Himigarapma Hoygarapma Allah jarama annabi jo Allah jarama Umaro Umar Umar mo dingirai Umar mo banjagara Jamni wale Madina Laylay lala gando wale Madina gando wale madina waliyal waliyaɓe wale madina jamne wale madina serna serna bene wale madina o banjagara sey kumaro fo tewtara Masusa balala mata pamande kiruna Ah lai lai lalla Masusa balala mata pamande kiruna Umar Umar